ziar Ada Boy Baol euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay tey nga war a bëre nga xamante ne mooy Arobase comme li ma la waxoon rek ngay bëre ku Koreas nga war a dajeek moom nga gëj a bëre tey say combat yi nga jël ko ñu bëgg a xam lan moo la booleek moom palmarès la xaalis la wala gëj a bëre wala bañ a lan moo la booleek Arobase. waaw mais avant tout maa ngi bu baax di julli ci yonent bi di gërëm sama ñaari di gërëm waa Parcelles ak ak mboor mboor yi ak ñu bàyyi seen liggéey ñëpp ñëw fii teewal ma xaw ma seen fay parce que woote ñu wuyu si la yombul quoi pour man. Arafat dara boole wu ma moom damaa gëj bëre ñu proposé ma ko ma jël ko pour bëre moom te incha allahu rabi le huit ma tàqali ko moom ci lu gaaw. nga bu ngeen xeexee ñu for nit ñemewul taxaw dëggal boppam yaa ngi ci loolu ba tey wala bu ngeen xeexee euh, tey ñu for nit. xeexee ñu for nit sama loxo góor gum daal ma wàcc. sama loxo bu ko dalee ñu for nit waxoon naa la ko waxaat la ko lu leer laa lay tegal nii nag yee wàccaay bi wàccaay bi mun nañ xam ci naka nga ko waajee sa diggante ak Arobase waaw waaj naa ko waaju met ànd ak waa parcelle waa Cambérène waa Dóor Dóoraat xam nga waa écurie jàmbaar wrestling ñëpp waa Rock Énergie parcelle gépp ama jàppale amul benn écurie boo xamante ne am naa fa xel ñaar ñi ñëw nag ak ñi ñëwul ñëpp maa leen di kontaan di leen sant di gërëm xëy na jot moo amul comprendre waaj naa ko bu baax ak ni ma ko war a waaje te dinañ bëre lu neex dañ xeex su bëggee incha allahu rabi mu andi ndam li parcelle waaw. combat bi mun nañ cee xaar nga ziare ngeen ziare ji Ardo ñëwaat naani soo ñëwaat. Ah. man ne bu ma ko jëkkee dóor bu demee Ardo damay ñibbi. Ah, moo tax. damaa xam li ma entraîné rek foofu rek laa ko teg tegu ma ko feneen damaa sonn ci làmb ji bël man ak Talfa ñoo nekkoon maa ngi koy félicité si ndam li mu jóge ñu nekk lu yàgg ci àll bi. billaahi wallaahi di toog lu ne ñu koy lekk lu ne ñu koy gis di muñ kon yàlla suturaal na ko man maa ci des te incha allahu rabbi dama koy indi sama sët indi na ko bu maam ñëwee laa la wax ëpp moo yow usal ma toog la moom nee bu ngeen bëree ba pare dina la wax lan moo tax nga jël ko wala li tax nga jël ko sa yoon nekkul ci làmb ji. loolu moom lañ ko war a wax damaa yaakaar daa xam di tay taylu wala xamul ñaareel benn ko ci dal yaakaar naa suñ bëree ba pare dina xam ne man seen laa boo laal beneen yëngu damaa wexat. kaane sa na nga wala kaane tam. déggoo ma seen njàng laa seen boo ko xoojee mu fanaan boo xëyee doo naan te boo ren boo laal beneen yëngu ñañ ñoori bi ngay waxal nii de looloo gën a mu di wax ji. maanaam arobase lan am ci combat bi combat bi lan ci arobase. mu teel a ñëw rek ndax yéen daa sori ma teel koo libéré mu jàddewaat ci guy gi dem ñibbi are guy gi lay jàdde waaw yéen dafa sori quoi na teel a ñëw ma teel ko daan rek ci discipline incha allahu rabbi. yéen ñaar kan moo ci ma sa borom sa morom sens. waaye déggoo ma de pël moom bu ma mayee sens ak moom mayul sens yëpp yëpp yëpp moo ma jëkk a bëre moo ma jiitu ci làmb mais def fi loo xamante ne nii ba may may sens. yee waaw. combat bi lan la la jaral man lum la jaral laa ko tuddee lum la jaral. combat bi jaral la ma lu ne parce que samay morom ñoo fiy bëre di daan te duñ ma gën a gore comprendre nga ci gox bi laa dëkk ndam laa bëg comme ñëpp te kenn daaxu maa bëre kenn gënu maa ñeme entraînement te samay morom ak samay rakk ñoo fiy bëre di daan kon man daan rek moo ma ji pël combat bi amul lu ma jaral barke alxuraan li ma ci sonn musuma ci sonn ci combat. ko kii li ma jaral man da koo jaral. man combat bi jaral ma waaw yow pël su ma la waxeen fu may fanaan ndax combat bi sax doo ko gëm waaw yow bàyyi ma yow fond ak cere pël lañ reere lañ naan reere maag talpa fond ak cere chaque jour di ko jaxase barke alaaji Fallou Mbacke fond ak cere du am meew du am billaahi wallaahi yéen saa ñu am meew yéen saa ñu am boobu suukar sax day neex ci ñun laaj ko mi ngi nii démb sa biir wax nga ne sa yaram day daw ndax tey foo tourné aada booy mooy bëre mooy bëre la wi sareet yeeg ñëpp nga ne dañ ciy topp sa digganteeg waa parcelle lan la. sama digganteeg waa parcelle jàmm la rek parce que man ku ma dama lay nuyu ku ma romb damay kafa yow boo ma géyee samay bëñ ngay jëkk a gis mënu sax ñepp bu baax comprendre nga te pël ñi ma topp nii duñ ma gën a gore barke alxuraani karim làmb ji tey nit ñu bari wàccuñu sawóori camion ak apprenti yi pël bu loo gis ci stade bi laax loo boppam bu ñëwee tey boppam. fu mu mën a taxaw damay ñëw nee naa la démb góor a soog a tax ma bëgg làmb da ngaa a gis góor a soog mu arrière buy daan buy daan ñun arrière loolu sunu maam yi la ñëw rek incha allah rek jël nañ moom ñu bisi ndànk waaj a rek mais bis bu yegsee du dara. làmb ji ñu xaar ci xare ba dal lu dul xare ba ndam de laa fi indi rabbi ndam loolu laa ñaan yàlla loolu laa préparé loolu laa indi. waaw woo di wax père ba man Mansour ba jàpp leen si combat bi ngeen jàpp leen si billet yi Youssou Ndoye maa lay woo Youssou Ndoye jàpp leen si billet yi yaag a ba ak Mansour ba parce que billet yi yéen yéen a ci mën a jàpp booy dem stade parce que pël ñun dañuy mobiliser mais dañoo am problème ñu ñuy jàppale nañ ñu jàppale te yàlla tax parce que ñun ay mbër yu ndaw lañ te topp suñu ginnaaw bari na maa ngi woo mboor mboor yëpp nag maa ngi woo aada Jokal di woo Modou Bey xam nga di woo Góoru Mbeen Tafa Diop sëñ Omar ay njaxat bàyyi laat maa ngi woo ñëpp Tafa Diop bàyyi ma waa Grand ñoom Zos ñoom Maki maa leen sant di leen gërëm ay borom baax lañ bërëb yi moo tax ma xam leen mais barke alxuraan ay Baay Faal maa leen di woo ñoom ñëpp di woo waa Cambérène waa Parcelles di woo sama mbokk di sant sama yaay yadda nag sama yaay yadda dafa sonn ci combat bi barke alxuraan karim chaque jour lu mu ciy def si xaalis xaw ma nu mu toll di ma jox lekk di ma jox naan xooluma benn bët maa ngi koy sant di ko gërëm di wax kante nga ñëw jàpp si combat bi maam jaara borom France combat bi jàpp si bu baax a baax aada jokkel booy bool booy bool yaay sama turandoo yaa ba Amérique combat bi war nga ma jëndal ay billet te diggoon nga ma ko maa ngi lay woo nga jàpp di sant ay ñoom sëñ Omar ñoom Mbaye Boussa ñoom Cheikh sama mag di sant Jos mi nga xam ne mooy sunu garant comprendre nga ñu ko suivre mu neex ñu lool bañ yàlla dogal bañ dem ba nekk ikiréem di fa jàng bëri kon ñun tamit moo koy woo ci combat mu jàpp lañu ci bu baax a baax parce suñu garant la te dañ koy bëreel di ko daanal bu soobee yàlla boo yi koy teg xaar rek ku ma fekk laa wax déggoo ma de ñañ di ndax fa nekkoon di entren di yéen wax ñoom ñëpp ñëw si combat bi di bëggee Njaay mbaami loor di ziar ñëpp di mag ñi ma jàppale ñëpp aw ma seen fay pël waa waa ma fiyaa ti bu sotti ti bu sotti maa leen sat di gërëm am na nuñ def ak man kon kontaan naa ñoom bu baax ak waa ma fiyaa Njaga Mbay bi waa Arat Alpha waa biir Cambérène xam nga waa waa Intakat waa Jàmmalaay waa Nord Foire waa 37 woo naa ñëpp si combat bi pël incha allah pël bu dimanche bu noppal génn waroon ngaa ñëw taxaw bi incha allah yal nañu yàlla yóbbu ak jàmm incha may ma ndam ci kawam maa ngi woo waa Mbayaar yi waa Mbayaar yëpp tamit bàyyiwuma kenn waa Interdis waa Indochine maa sant maa ngi gërëm bàyyiwuma kenn